ñu ngi am mbégte dalal euh, Modou fa Fada njiital euh, parti bi di LDR Yeesal nekk itam directeur général Sonacos ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la. Fatou maa ngi lay fay di kontaan man tamit di dellusiwaat ci sa kanam ci émission ngir euh, waxtaan ak say auditeurs. alors ñu commencé wàllu politique réew mi yëngu woon fan yi ñu génn ba sax waa bitim réew yëg ko ma bëgg a ñëw ci kaddu yi nga xam ne député Mélenchon ak Olivier Faure yëkkati nañ ko wax ni Sénégal fi jalgatee mu wax ci euh, arrestation yi manifestation yi ñu tere député yi nga xam ne teg nañu leen loxo boole si ku manifester ñu ñu dal sa kaw euh, ñoom takk der yi ci ndigalal état est-ce que yaakaaroon ni wax nañu dëgg et que jot na itam état xoolaat taxawaayam. bon euh, Mélenchon ak Faure xam nañ ci camp yi ñu bokk. xam nañ ni tamit am nañ ay xarit Sénégal comme ni ko Modou Diagne Fada amee amee France parce que politiciens yi nekk France ak yi nekk Sénégal dañuy duggante bu baax a baax. xam ne ñu ngi ci opposition bi de ca France doo leen dégg ñu yëkkati kàddu yu mel noonu alors ñoom ñu yëkkati kàddu yu mel noonu ne démocratie Sénégal dafa mel ne dañ koy dëggaate bon bis bu nekk ñu yëkkati kàddu yu gën a garaaw jëmale ko ci démocratie bu France yaakaar naa li ñuy yàkk euh, démocratie bu France di ko yàq président Macron weñ bu ci laal de donc ñoom nag ñu mën a yëkkati yooyu kàddu jëmale ko ci réew mi muy ni muy doxee bon fii état de droit moo fi nekk kenn ku mu neex nga joxe sa xalaat mais li ma xam daal mooy. defuñu fi njombe bu nga xam ne jar na quand muy àgg foofu parce que ñi ñu ñi ñu jàpp c'est vrai kenn bëggul ku ñu jàpp kenn bëggul parce que ñuy jàpp ay père de famille lañu ay mère de famille la kenn yéenewu leen ko aussi en dehors du fait que bokkuñu camp bokkuñu euh, nu ñuy nu ñuy gisee suñuy xarit la ñu suñuy jigéen la ñu bon donc kenn yéenewu leen li leen li leen daal mais kuy politique nag nekk ci. langue opposition gi da ngay da ngay da ngay nangu. léeg-léeg euh, yu mel nii di la dal parce que man mii di wax ak yow ñaata yoon la ñu ma tëj ci kaso ñaata yoon la ñu jàpp parce que dama doon euh, xeex pour lii wala pour laa. ñoom tamit nag donc bu fekkee dafa am ngëm-ngëm bu ñu taxaw ne dañ koy xeex ba lii fekk leen ci. nangu nangu nañu nangu dogalu yàlla nañu nangu dogal bi parce que xam nañ ne bi nga xamee ne préfet nee na bu fi kenn dox. ba ñu jógee ne ñoom dañuy dox. li leen ci fekk mënoon na leen cee fekk. yàgg na donc ñu koy assumer waxtam benn problème seen xañ na seen i militant wala seen i mbokk wala mais ñoom seen bopp keroog yaakaar bi ñu génn seen seen seen kër mais waxtaanoon ak waxtaanoon nag seen jëkkër wala seen jabar ne leen ah tey man damaa bañ a reeree kër ga loolu en tout man dama ko daan dañ ko daan def dama ko daan def alors député nga woon itam nekkoon président de groupe ñuy wax ne député yi ñu teg loxo ak anam gi leen jàppee jaaduwul bu ñu ko tegee ci yoon ndax immunité parlementaire bi loolu la immunité xam nga xam nga immunité parlementaire way député bi am na ko waaye immunité parlementaire dañ ko encadré dafa am fu mu foo ko amee ak foo koy foo koy ñàkkee te même boo ko amee tamit bu neexee exécutif bi bu neexee enquêteur bi wax ne nañ ko yëkkati nit ñu bari yaakaar naa député yu bari yëkkati nañ ne seen mbalaanum uh, kiiraay parce que yoon daf leen daf leen daf leen soxla alors donc bokk na ci li nga xam ne boo xewee amuloo immunité parlementaire mooy flagrant délit maanaam nga xam ne uh, lii dañ koy tere nga def ko ñu jàpp la loxo si nga xam ne wax ji ëpp na fa nga koy waxee bala mu am ñaari fan ñetti fan ñu ñu jàpp la loolu mooy flagrant délit euh, li ñuy wax naan euh, flagrant délit nag wax dëgg yàlla mën nañ wax ne moo leen moo moo leen dal ndax préfet bi dafa wax ne tey bu kenn génn di di di manifester ñoom ñu xam ne ay kilifa opposition bi lañu ñu xam aussi ne waxoon nañ ne ñoom quelque soit alpha daañ dem euh, manifester ji donc bu ñu tasee ñoom ci mbedd mi dañ leen di dañ leen di dañ leen di jàpp loolu yaakaar naa ne amul benn problème maintenant benn chance bi rek mooy fii moom gars yi mun ñu fee nekk di di xaar naa dañuy enquête parce que flagrant délit xam nañ leen daal di atte rek moo ci moo ci moo ciy topp donc yaakaar naa altine ne tey lañ leen di lañ leen di lañ leen di atte bu yaakaar naa ba ngoonee ñëpp daañ xam euh, mbir moomu nan lay nan lay nan lay mujjee mhm. alors lan mooy saxalaat ci ñi wax nañu dàq élection yi wala dàq gi ñu euh, sàkku ñenn ñi ngir ne peut-être mën nañu ci rectifier waale yenn manquement ak <coughs> erreur yu am ci xam nga démocratie nag vraiment démocratie aussi du du rek démocratie lijjanti quoi xam nga fii léeg-léeg ma dégg fi ñuy wax ñu ne société civile lañu mais xam nga société civile dafa ñaari société civile am société civile bu nga société civile bu nga xam ne opposition bi lañ jege xañ na am na société civile bu nga xam ne suñ nguur gi lañ gën a jege alors que société civile vraiment dafa war a nekk si digg bi alors mënuñu mënuñu ne nañ dàq élection yi parce que simplement euh, liste titulaire u Yewwi jàllul wala bokk liste Benno Bokk Yaakaar proportionnel euh, suppléant jàllul alors li tax liste titulaire yeewi jàllul waaye yeewi ñoo ko teg seen bopp ndax ñoom ñoo fekk nit ku nga xam ne amul ñaar fukki at ak juróom ñu dugal ko seen liste biñ leen ko signalé ministère de l'intérieur signalé leen ko ñu waroon ñëw jël kooku remplacer ko ak keneen ko nga xam ne éligible na ñu dem jël benn suppléant remplacé ko kooku ba pare fàttewaat changé fële. donc boo ko seetee liste bi matul matul matul nombre de candidats donc foofu vraiment ñu invalider liste bi dafay nekk lu nga xam ne kenn war ci woon a teg teg baat est-ce que maintenant dañ ci waroon boole liste suppléant yi ma ne déedéet bu fekkee liste suppléant yi matale na li mu li mu war a matale war ñu ko ci boole. mais xaajale boobu nag moo jaaxal ñu bari. non mais xaajale bi warul jaaxal ñu bari xañ na ñu muy jaaxale mooy gan ñi nga xam ne dañoo ñëw ci waa politique waaye waa waaye yow dafa bari ay gan ci politique bari ñu nga xam ne moom bi politique neexee rek lañ ñëw soog a wax ne dañuy dañuy politique mais ba ñuy politique dëgg dëgg dëgg. 88 90 booba ñoom ñu ngi woon ci leneen naan gars yi dañoo dof gars yi xamuñu lu nekk. alors boobu ñun ñu ngi doon jàng politique di jàng ñu ñuy monter ay liste. di jàng ñu ñuy defaree ay liste. Euh, tey jii yaakaar naa ne suñu ñu euh, su am nañ ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu nga xam ne xam nañ luy matière électorale ñoom nag yàlla dafa dogal ñu bari ci ñoom ñu nga xam ne xamuñu luy matière électorale parce que fa ñu njëkk a defee njuumte mooy ba ñuy méngale élection locale ak élection législative ba naan intercoalition bu gaa yi wotee fii lis wàllu dem fee wote fee liste lis liste yeew yi boobu rek déjà la ñu njëkk a daanu maintenant ñu ñëw tegaat ci daanu daanu bu bu bu mel nii te li may fàttali rek mooy xaaj bi ñuy xaaj li si Cour suprême ci 2014 mais xaajoon na su électorale bu bu Fandène euh, va invalider liste titulaire bi valider liste proportionnelle bi donc li mës a fee am jàpp naa ne donc conseil et puis de toute façon vous savez li tax ñu naan conseil constitutionnel mooy daj dëpp gi problème mën naa am sax bu nga xam ne xaj na loi yi prévoiruñ ko wala musta am mais dès l'instant ñoom juróom-ñaari sage ñu teg leen fa bu ñu dogalee nga d'accord ci wala nga bañ ci d'accord da nga war a plier man d'accord ma ci lii conseil conseil def ci liste départementale bu Dakar d'accord ma ci bu doon man rek liste boobu dañ ko war a invalider mais ba ko conseil conseil waxee ne valide na dama caa maanu. donc ñoom tamit lu mel nii lañ war a lañ war a. war a doxalee. d'accord ñu bëri nag gis ne président Macky Sall jamono yi dafa wéet lool euh, ci song gi ko opposition bi di song te moo ne am nay alliés yoo xam ne xëy na deselatu leen dara waaye kenn déggu leen noonu euh, bu ñu ko xoolee ci xew-xew yi mujjee weesu loola yëgoon ni sentiroo ne yow wax jooju concerné na la. non non non man moom concerné wu moom parce que xam nañ ne maa ngi wax. maa ngi wax. li ma war a wax. maa ngi joxe yi tamit sama xalaat sama parti mu ngi joxe xalaatam bu àjjuma bi ñu passé rek comité directeur parti bi euh, daje na euh, joxe ci xalaatam wax xalaatam. lu ko jiitu waaye bi defee yëngal ba lu ko jiitu. Mm. université du yeesal bi mu jotee. jël naa fa kaddu wax li nga xam ne moom la sama parti xalaat tey jii maa ngi nii di waxaat ak yow encore. <laughs> ci ci situation donc yaakaar naa ne. te man allié la mais yaakaar naa ñëpp dégg nañ aussi président Idrissa Seck ñëpp dégg nañ maanaam Aminata Mbengue Ndiaye ñëpp dégg place ñëpp dégg nañu aussi de grands responsables la paire. Yewwi da leen a ëpp doole rek ci communication bi xam nga opposition def na fi conseil de casserole bu ñëpp dégg. lu ko jiitu aussi dox nañ fi donte dox ba dañ ko tere waaye yëglu nañ ba ñëpp yëg xam nga xam nga ñuy liggéey. ak ñuy wax dañoo bokk ñun dañoo nekk yore ay responsabilités di liggéey bokkuñu ñi nga xam ne guddeeg bëccëg wax dong moo leen dese am na lu fa nga xam ne tamit mënuñu faa tollook ñoom ci wàllu ci wàllu ci wàllu doxalin parce que tamit Sénégal yi jéppi ñu ñun bu ñu waree dem defi defi defi man ba mu waree dem seeti euh, Sonacos damay doxee ma ne xaaral ma éliminer ko dem def conférence de presse mënuñu dëkk ci loolu ñun dañu yoree càq borom càq nag bokkul ak borom borom borom baatu neen alors donc euh, euh, c'est bien ñu ngi ñu ngi def seen i manifestation bon defoon nañ benn ñu autorisé leen mu jàll ci jàmm beneen ñëw na ñu tere leen parce que ñu nar a defaat le parce que tere bi ñu leen tere yi tamit jàpp naa ne jàpp naa ne lu lu la parce que am réew yi tamit euh, quand nga am sa liberté ne man damay def manifestation ñu bàyyi la tey mais loolu yi tamit war na laa may nga teg liberté keneen ki nga xam ne bëgg na doomam jàngi bëgg na am quiétude donc liberté yi tamit dañ koy dañ koy sàmm te état bi dafay nekk pour réguler aussi mënoo ne bis bu nekk rek damay marche bis nekk rek damay manifester loolu aussi kenn mënu ko seetaan muy muy muy muy jàll alors benna ñu ngi euh, bërki démb changer nañu méthode de lutte def concert de de de casserole man ni ma ko gisee rek mooy. Euh, gars yi xam nañ ne léegi Sénégal yi waxuma rek ñun politiciens yi parce que ñun peut-être mën nañoo par parloo. Euh, comme ñoom ni ñuy par parloo mais afam Sénégal yi nga xam ne ay jàmbur yàlla ñu nga tëdd seen kër. ñoom seen bopp dafa am ñu nga xam ne dañoo jël jàppe leen comme ay saagakat comme ay xastekat. alors ñooñu nag ñu jàppe leen comme ñu nga xam ne dañu violent dañ naan dañuy bu ñu waxee rek dañ na xale yi wàcc ci tali bi. nañu nañu guerre bu ay nit deewee nangam ak nangam nañu toj kër yi nañu def lii nañu def laa alors dem ba nit ñi xaj na catalogué leen loolu ñu ne nag léegi nañu jéem a euh, image boobu daal nañ ko jéem a dindi ni ñu koy dindi nag léegi mooy bu ñu waxati na nit ñi wàcc ci tali bi dee waaye nañu def concert de casserole bo on verra bien def nañu benn nee nañ ñu ngi waaj a defaat euh, xawma lan ñu ngi leen di déglu mais jàpp naa ne daal li am solo mooy le vingt neuf bu ñu leen teree nañu nañu bàyyi respecter Euh, préf gis nga kenn ku nekk da ngay waajal ëllëg parce que li ñuy def yëpp xam naa du ma sa am sooba ñoom bu ñu jotoon ci nguur gi dañ leen koy opposé kon nañu def ndànk Sénégal war ànd ak daal euh, dafa war ànd ak jàmm maintenant na waxuñu ne na ñëpp farandoo faral Macky Sall président Macky Sall wala na ñëpp déedéet waxuñu loolu opposition dafa war a am dafa war a exister démocratie dafa war a am sénégal yi dañu leen war a proposer ay liste juróom-ñetti liste ngi fii kenn ku nekk bu la ci neex nga nga tànn mais maintenant nag yenn détails yeeg yooyu nañu dem rek ci combat bi parce que ñoom de toute façon am nañu ay représentants ci biir combat bi même bu fekkee ne euh, ci liste proportionnelle lañ leen bindoon les militants sont d'égale dignité donc war nañu dem rek ci ci combat bi. ku ñu fal ñu xam ne fal nañu. Mhm. alors euh, ñu bëri nag ci àdduna bi di jànkonteel jafe-jafe ci wàllu dund gi surtout crise alimentaire bu bàyyeekoo tamoo ci xeex bi am euh, Ukraine. Euh, diwlin bi am ci jafe-jafe ñu bari gisatuñu ko wante mu cher lool ba ci biir réew mi ñu yëg ko. ñenn nag di laaj lan mooy njëriñu Sonacos ndax bu taxawoon xëy na taxawaay bi mu waroon am dëgg-dëgg mën na ko bañ a yëg ni nu ko yëgee woon looy tontu ci loolu. nga xam nga ñuy wax dañu xamul Sonacos fu mu toll. Sonacos xam ne léegi sax la ñuy waxaat waxi Sonacos waaye Sonacos moom xam nga daanaka raafoon na ah. alors donc léegi la ñuy waxaat waxi waxi Sonacos Sonacos ndaka jekk Sénégal quinze mille tonnes la ñuy soxla ci weer bu jot xañ na Sonacos lim ci daan mën a lijjanti maximum quatre mille tonnes lay nekk kon ndaka jekk yeneen beneen tonnage bi bitim réew lañu ko daan jëlee ndaka jekk lool fu ma moo fa nekk donc Sonacos euh, mënul mënul moom dong lim ci man mu ngi koy def ndax tey bu lu woon ak Sonacos dëwlin bi bu dëwlinu gerte bi mu dugal ci marché bi di ko jaay ay client am raffiné ko ba di ko jaay en vrac ñooñ di ko conditionné di ko tegaat ci marché bi kon njëg yi gën a gën a gën a yéeg ndax Sonacos moom société nationale société sénégalaise société citoyenne la du bokk ci spéculation njëg yi maanaam du du yéegal ay prime prix yi nga xam ne moo fi nekkoon depuis deux mille vingt et un depuis même deux mille vingt prix yooyu ba léegi moo fi nekk yokkuñu ko euh, wàññiwuñ ko te dem nañ dem ba nga xam ne ay huilu palme nga xam ne ñoom ñoo gën a ñoo gën a néew qualité huilu gerte dem ba huile yooyu gën a cher wala tolloo ak ak ak huilu huilu gerte donc bu fi huilu gerte bu ñëwoon ñun dañuy yokkaat huilu gerte kon ñoo ñu a gën a yokkaat mais luñ yokk yokk mun ñu ñëw quand même romb lu romb lu bari parce que kon du ñu duñu duñu ñu jaay donc heureusement que malgré tout Sonacos nekk fii te ren décision bi nga xam ne gouvernement président Sall jël na ko gouvernement bi jël ko mooy ginnaaw autorisation exceptionnelle bu ñu am pour exporter yenn quantité euh, graines yi mboolem lu ñu am ci gerte nañu ko xolli euh, nal ko euh, def ko dëwlin ak ràkkal ràkkal ji pour sàmm yi dëwlin bi pour pour pour nit ñi te loolu ci la ñu nekk te gëm nañ ne loolu dina mën a téye njëg yi alhamdulilahi rabbil alamin d'ailleurs parce que njëg yi ab na ñetti semaine ci ci ginnaaw Euh, boo jëndee tonne dëwlin lu ëpp deux mille cinquante dollars nga koy jëndee. Euh, ak te dëwlin mu nga xam ne du dëwlinu gerte du dëwlinu olive yeneen soja la wala bokk palme la alors mais semaine bii ju passé day am na ñu nga xam ne ñu ngi proposer ay bateau mille sept cent euh, dollars donc mel na ne yëf yi mu ngi mu ngi mu ngi wàcc donc bu wàccee yi tamit nag consommateurs yi dañ ko war a sentir. et gëm naa ne ci kanam tuuti rek daañ gis ne. Euh, njëg yi mu ngi wàññeeku njëgu diwlin di mm. parce que itamit euh, li koy def rek mooy xam nga bu ñu ne guerre am na rek kenn ku nekk da nga naan déet defal ndànk man li ma yor naa ko lekk d'abord sama réew duma ko jaay bitim réew loolu donc day jafeel marchandise yi mm. ensuite fret yi muy circulation yi bateau yi du yomba am mm. ndax doo xam ban mer ngay jaar parce que euh, mer yi dañoo ko donc yooyu yëpp moo tax moo tax d'ailleurs bu ma déggee nit ñi di wax tafaar di wax ay dama naan xamuñu lu ñuy yàqal koom-koomu réew mi ak lu ñu yàqal i tamit euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy acteur euh, acteur économique yi mhm. ñu jeexal ak kàddu yi nga yëkkati ci Abidjan euh, barki démb wax ni dàquloo xëy na ba seen Sonacos dem ubbeeku ci capitalam ndax loolu du beneen privatisation buy ñëw ndax ñay dugal seen koppar itam dañuy am taxawaay bu ñuy am waaw xam nga xam nga ñun moom bon du ñun ñooy dogal suñu xalaat rek la ñuy wax mais état bi moom mooy dogal bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko jaree alors ñun euh, bi ñuy jël kër gi li ma koy fàttali souvent dañ fekkoon déficitu sept milliards maanaam perte yu nga xam ne sept milliards moom lañu fekkoon yàlla dimbale ñu 2019 ba léegi exercice bu ñu paree rek yàlla may nañu bénéfice ñu ko ciy sant bu baax di ci sant aussi équipe bi ma àndal ci liggéey di ci sant travailleurs yi nga xam ne vraiment jàppale nañu ci ci ci liggéey kon jàpp naa ne jàpp nañu tey bon Sonacos muy jeeg bu ndaw boobu ñu fekkoon mu xaw a xaw a ñàkk doole xaw a latikaaf kanam gi naayiwul woon tey quand nekk na jeeg bu ndaw bu nga xam ne bon ku ko xool mën ko bëgg kon war nañ ko mën a wutal jëkkër du doon beneen privatisation ah, attends non mais mënul nekk nag comme ni mu nekkoon bu njëkk hmm. parce que bu njëkk moom dañu jaayoon kër gi dañu jaayoon jànq bi doon jàpp ne xañ na bu buñ ko jaayee dina gën a rafetaat far ñu jaar ko nag bu gën a dugaat ci dugaat ci dugaat ci dugaat ci euh, ñaaway bu gën a bu gën a metti bi pas dañu dañuy jàpp ne état <clears throat> dafa war a garder majorité su garder majorité ba pare nag maintenant wut ay investisseurs investisseurs yi ba na ñoo nekk waa Sénégal mën nañoo nekk waa bitim réew mais nañ nekk ñu nga xam ne ñu sérieux lañu ñu ñëw indi xaalis parce que kër gi dafa soxla xaalis pour yeesalaat ay jumtukaayam dafa soxla xaalis ngir moderniser ay outils naam état bi am na lu bu ñu dikk lu toll ci ñaar fukki milliards yu nga xam ne dañu mën a mañ réhabiliter euh, kër gi amaat beneen centrale d'énergie am ko Kaolack am beneen centrale d'énergie bu bees am ko am ko Ziguinchor réhabiliter raffinage bu bu bu Ndakaaru mais li nga xam ne mooy beesal kër gi dëgg-dëgg mais dana jege cent milliards mais cent milliards nag munoo koo laaj état cent milliards ci société bu nga xam ne dafa euh, elle est devenue bénéficiaire war naa mën a dem ci marché bi wuti ay partenaires yu nga xam ne dañuy dugal seen seen seen seen seen koppar am ci part yi yiñ ci yiñ ci war a am pour que ñu gën a mën a yokk parce que loolu bis bu amee dootuñu soxla di di jigaan yi dawlin bitim réew daañ mën a liggéey nal li sénégalais yi di soxla te ci njëg yu nga xam ne sénégalais yi daañ ko mën a jënd parce que bu fa bu boobaa suñu condition de travail suñu condition de conservation suñu condition de stockage suñu taux de rendement dafay gën a yokk ba nga xam ne euh, prix bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy am ñëpp daañ ko mën a jënd jërëjëf amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tay bi Modou Diagne Fada fàttali ni yow yaay njiital RDS Yeesal jiite itam Sonacos man tamit euh, bég naa lool euh, waxtaan ak yéen ci seen matinal bi lépp lu ñu fi wax comme ni koy faral di waxee lu ci njëriñ nañ ko bokk lu ci njubte nag comme d'habitude maa ngi koy jégalu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu jërëjëf